Euh, li ma tax a yëkkati kàddu tey man bëggoon naa mu doon loo xam ne ci yi may yëngu la maanaam defendre intérêt sénégalais yi rawatina seet nu ñuy def pour yokk koom-koomu réew mi pour ñëpp mën ci jëriñoo loolu bokk na ci xeex yi nga xam ne maa ngi koy def di koy mener depuis très longtemps pour seet nu ñuy yokk koom-koomu nit ñi génnee leen ci li tubaab wax pauvreté maanaam ñàkk-ñàkk loolu mooy sama combat bi ci topp mooy suñu environnement bi maanaam li nga xam ne moo ñu wër ak li ñuy wax défendre de l'environnement rawatina suñu corniche bi suñu littoral bi ci yooyu lañ ma xamee ak liggéey waaye li ci gën am solo mooy man kenn xamuma ci yëfu caaxaan dama amul jotu caaxaan waaye wolof njaay nee na seytaani waxul dëgg waaye yàq na xol yàq na xel la wax ma ciy boole yàq na xol suñu benn doom bu ñu tuddee abindu moomu fi tuumal ci loo xam ne yu doy waar la dëgg la am na ay jigéen yu bari yoo xam ne ah ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu ko nettali am ñu leen di topp di leen wax ay waxu caaxaan dugg na fii jënd na fii parce que dañu bëgg lii dañu bëgg a lee man nag yàlla may na ma juróomi bant ñoom ñëpp ay jigéen la kon nag man man Pierre bi kenn mësuma xamal yëfu caaxaan ki ma tuumal nag doom laa ko tegoon moo tax keroog bi ñu demee ci baayam li ko papa ji wax lu leer la duma ci dellusi ñu jóge foofu ma defe ne ah vraiment sama doom ji dëgg na comprendre na li ma koy wax am ci mbégteel bu rëy dem wax ko yi ma koy wax yi ma ko wax te seede nit ñi mën nañ ko seede wax jooju benn waxu caaxaan nekku ci waaye boobu moom dana euh, tribunal dina ko leeral parce que saabu matuta foob euh, fóot boppam saabu du fóot boppam du fi ne di jéem a fóot sama bopp waaye nag am na yoo xam ne bëgg naa ñu leeral ko mu leer ci boppi nit ñi man kenn duma tuumal ci loo xam ne defuma ko ma koy bàyyi dinañu dem tribunal boobu tribunal dina régler problème jooju parce que xam nga tey ci àddina ku la wax ne woo nga ko dix heures onze heures minuit rawatina trois heures du matin boo leen demee Sonatel Sonatel mën na leen àtt naan ah numéro bii de Pierre bi moo ko moom woote na fii bésu nangam bésu sàngam loolu buñ ko defee buñ ko wonee démontrer ko maa ngi nii ak li nga xam ne mooy médaille Grand Croix président de la république moo ma ko tàppal balaa loolu balaa mu kaa def moom président Macky Sall man ko ci gërëm bu baax président sengoor tàppal na ma président Abdou Diouf tàppal na ma président Wade tàppal na ma médaille lu tax may ñëw ci loolu Sénégal médaille jii mooy bi gën a rëy ci li ñuy joxe bu la yàlla dimbalee sutural la ba chef d'état yi fi ne ñépp ku ci ne ñoo tàppal la ko rawatina ki fi ne ñoo tàppal la bi nga xam ne moo ci gën a rëy mooy bi muy ta bi ñu ko tàppal moom ci boppam ah ça veut que mënoo dugg ci yëfu caaxaan ci yëfu tàppale rawatina ci yëfu liy tubaab wax mœurs man dañ ma yar dañ ma yar ci jub ci liggéey ci am yërmande tamit te defe naa foofu mooy problème bi kookuy wax dama ko yërëm ba dem ni ko fi nga bëgg a tabax waroo fa tabax parce que fii yoon la rond point la waaye man mii defal naa ko ñu bari mën naa la dimbali nga am lu lu lu ëpp lii ma defoon ne comprendre na bi ma kontaan ci am ci mbégteel bu rëy ndekete woo comprendre depuis plus de trois ans gisuma ko muy continuer di def lu muy def jóg di may tuumal ci yëfu waaw loolu nag ni ma ko waxee justice moom boobu dina ko tëral waaye li ma bëgg sénégalais yi xam mooy man mii lii duma ma arrêté parce que loo xam ne koom-koom bee ko xaw ma euh, ñépp ko moom kenn waru ko jël def ko sa aleeru bopp yaa xam trente cinq millions nga koy jënde un milliard nga koy jëndee waaye loo xam ne ñépp ko bokk ñépp ko war a bokk jëriñoo ko combat boobu nag maa ngi koy yëgal ñi nga xam ne xaw ma dañ ko yónni dañ ko yónni xaw ma li xew loolu moom yoon dina ko def waaye maa ngi yëgal ñi nga xam ne ñoo fi nekk di pasar pasar suñu suuf yi ne combat bi duma ko bàyyi ba bés bi fi yàlla di ma di di di ma jëlee loolu duma ko bàyyi mukk na leer ci seen bopp calomnie lii sa lii li tubaab wax calomnie maanaam ñaaw ñaawte yi nga xam ne dañ ko bëgg a teg ci nit ñi nañu xam kuñ koy teg ci li ñuy wax harcèlement sexuel maanaam góor yi nga xam ne xaw ma lu nekk seen bopp topp jigéen rek mooy seen métier loolu dama ko ñaawlu ci ñi koy xeex laa bokk parce que am naa ay doom yu jigéen waaye tamit jigéen yi nga xam ne dañuy jóg di tuumal nit ñi rek parce que defe nañ ne bu ñu tuumalee kii waaw ok ñëpp dinañu ñëw naan ah oui ñii nii nii nii man bokkuma ci ñëw ñu rek boo ma tuumalee danga koy def ci wóor ci wóor laa wax du ma dellu ci li mu wax parce que defe naa tribunal dina ko def te yu bëri yëfu caaxaan la quoi naan ne man dinaa maa doon dem papam di may jox ay cinq cent francs ak ay mille francs Pierre Goudiaby man bi ma fi wàccee 1973 yàlla may ma ma jàng ci école bi nga xam ne ci gën a rëy ci àddina la bokk waaw ma ciy sant sama euh, sama gouvernement yi fi nekkoon di ciy sant gouvernement américain di ci sant surtout sénégalais yi parce que doomu Sénégal bu ñu la joxee bourse nga dem jàng bitim réew rawatina ci école yi gën a rëy yi gën a cher boo war nga ñibbisi dellool Sénégal mu njukkal loolu laaj kon nag bi ma fi dellusee yàlla may mi balaa maa ñëw ma doon liggéey Amérique quelque mois rek laa fa liggéey.

mën nga jënd kër point E waaw dinaa dem di ñu may may ay cinq cent francs ak ay mille francs mais loolu man dugguma ci waxtaan jooju parce que loolu waxtaan ju sew la loolu taxuma jóg man li ma tax a jóg mooy encore une fois ma bëgg ñëpp mu dugg ci bopp ñëpp li nga xam ne askan bi moo ko moom man dinaa ci xeex ak samay xarit dinaa ci xeex muy tey muy ëllëg ñoom nag ñi koy def dañu am ay moyens yu doy waar mënu leen xalaat sax moyens yi ñu am waaye man doomu Casamance la am na yoo xam ne duma ko nangul kenn dëgg bu amee dañ koy wax mënoon naa toog jàpp sama njàmbur 73 ans yàlla sutural ma bu ma neexoon sax dem bitim réew ni ko ñeneen di defee waaye fii sama réew dama dellu si pour liggéeyal réew mi xam ne ah éducation biñ ma may muy éducation bu fii muy bu feneen macha allah li nga xam ne jàng naa ko parce que encore une fois bourse biñ ma may moo tax ma mën a am ni loolu duma ko fàtte mukk looloo tax keroog nit laaj ma waaye yow lu tax ngay xeex bi léegi de vraiment man dama amel njukkal Sénégal loolu rek a tax a jóg bi may xeex corniche bi ak a yàgg ak a yàgg saaga nañ ma ci menacé nañ ma ci dem nañ ci lu ne mënoon naa toog jàpp sama njàmbur toog sama kër gi waaye conviction xam ngeen luy conviction conviction mooy loo xam ne danga ko gëm Sénégal ji mën nañ ko transformer man loolu mooy sama problème waaye transformation bi nag ci environnement bi lay commencer waaw environnement lay commencer parce que boo amee boo bëggee am lu baax da ngay seet sa environnement nga defar ko ba mu baax loolu laa jàng kon nag xeex bi nga xam ne moo ma tax a jóg tuuma caaxaan du tax ma arrêté ko tuumalu lu caaxaan du tax ma arrêté ko kii wax lu mu bëgg ñu bàyyi ko mu def ay kios ak xawma lan ci rond point ma ko loolu ma dutu am rawatina ma ni étudiants yi man mën naa leen may place boo xam ne mën ngeen ñëw ji ji feexlu bëggaluma ko sama bopp port bi millénaire bi ñuy wax sama alal laa jël tabax ko may ko askan bi kon nag vraiment maa ngi jéggalu encore une fois parce que li ma gënaloon mooy tey ñu wax waxum développement ñu seet waxum coronavirus bi nga xam ne mu ngi ci réew mi ma ciy jël deux secondes pour wax leen leen loo xam ne lu yomb la seen masque yi boo leen ko porté boo leen di waxee ak nit bu leen ko jëndee wax parce que ci lii la feebar bi jënd parce que am na ñu bari yoo xam ne xam ne dañuy tàkk masque wi et puis bu ñu waree wax yow di koy jëndee loolu bu leen ko def mukk bañ a takk masque sax moo ko gën kon nag boobu nañ ko évacuer nañu dellusi ci li nga xam ne mooy li ñu tuumal jël naa sama avocat yoon dina wax ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg bu dee dëgg la li ma leen woon sànq naa ko delloo président de la république parce que loolu kuñ ko tàppal kuñ ko tàppal waroo dugg ci caaxaan yu mel noonu kon nag euh, bii mooy première fois may dugg ci seen li ngeen di wax euh, euh, Facebook amoon naa page nag ñeneen ñoo ko doon animé waaye tey defe woon naa ne bi ma gisee seede yi nga xam ne ñoo xam ne ñenn ñi dama leen fàtte woon sax seede nañ ko ci man daw na yaram moo tax bi ma yeewoo tey ma ni ah Pierre mbir mi def nga ko ci yoon waaw yoon dina leen àtte waaye nag war nga wax ak askan bi pour rassurer leen maanaam buñ ci am ñaari xel Pierre Goudiaby Pierre Goudiaby Atépa doomu Casamance rawatina doomu Sénégal noonu am na yoo xam ne bu ko def mukk ci àdduna mukk ci àdduna maa ngi jégle jégge jéggelu ni ngeen koy waxee mu <laughs> ma ko waxoon ci joolaa sax mënum ko waxee nii maa ngi jéggelu bëgg rek ñi nga xam ne surtout rawatina les jeunes gis naa seen comportement dëgg naa ne hier dem nañu foofu di manifester je comprends parce que man bind naa téere boo xam ne ñu ngi ko tuddee osé bindaat beneen téere Sénégal rek waaw ku bind Sénégal rek wax leen li mu ci wax yëpp sampan dëndëm naa ne daf leen bëgg a euh, bëgg a nekk seen président ñu koy tuumal ci yëfu caaxaan non attention kon nag encore une fois euh, maa ngi jéggalu euh, bu leen ci am vraiment sama xarit yi ak ñi nga xam ne xam nañ ne Pierre Goudiaby euh, bokkul ci yenn yi na seen xel dal man mii maa wax sama avocat na dem Sonatel na ut euh, euh, réquisition ñu seet numéro yi ma téléphone yépp yépp depuis trois ans bu dee benn yoon rek gis nañ fa ne woo naa soxna si ci li mu wax ak ni mu ko waxee tudduma Pierre Goudiaby Atepa tudduma Pierre Goudiaby Atepa du maa ngi leen di gërëm di leen sant àddina yépp ci njubte laa ko def sama àddina yépp jub kenn mën a jàpp ci kii dafay nga ne bu ma amul yu may nëbba dinaa fi ne di def yi may def waaw man dama amul jooju jot dama amul jooju jot kon nag vraiment euh, bëgg naa lii daal ñu yemle ko fi tey euh, may jéggalu encore bëggoon naa ko wax ci ay wolof yu yu baax bëggoon naa sax bañ wax parce que mu ngi tribunal waaye wolof njaay nee na roof yàqul jël